mbokki internautes yi dal leen ak jàmm coowal 94 milliards yi nga xamante ni nag daanaka mu nekk scandale bu gën a mag bu impôt domaine mësa a jaarale ko nag ci ki nga xam ne mooy leader bu Pastef di Ousmane Sonko ba mu nekkee nag inspecteur impôt domaine ci jamono jooju Mamadou Mamour Diallo nekkoon directeur des domaines nag ñu daal di nag waxoon ci benn somme bu 94 milliards boo xam ne dañ ko daal di nag luubal ay njuuj njaaj yoo xam ne dafa nekkoon ci diggante moom mi nga xamante ni euh, moom mooy Mamadou Mamour Diallo ak ay collaborateur am ci jamono yooyu le moom mi nga xamante ni mooy Ousmane Sonko naka nekkoon fa ci yooyu le temps euh, daal di jël lépp décelé ko ba mu daal di génnee ca domaine nag ca saasa euh, la daal di nag bind benn question écrite ci assemblée nationale ngir ñu leeral mbirum 94 milliards yooyu le naam traîné na nag ndax lu toll ci ñeenti at ngi nii ñu ngi koy daal di nag waxtaanee moom Mamadou Mamour Diallo nag ca la daaree sax ne fes kenn dégg ko tu ko fenn ci mbirum impôt même Ousmane Sonko nag bàyyiwul mbir mi ba tey ndax daf ko jaral mu def uti sax ay avocat yoo xamante ne ñoo ko ci layoon ngir ñu leeral ndax nag 94 milliards yooyu lé li ci ëpp daanaka benn famille la ñu ko daal di nag jëlee lekkal leen seen xaalis boo xamante ni daanaka lépp ci mbirum njuuj njaaj la bu buñ sukkandikoo nag ci njiital Pastef bi di Ousmane Sonko loolaa waral nag ci euh, bi nga xamee ni nag euh, toog na daanaka at boo xamante ni dégguñu juge bi nga xam ne moo yor dossier 94 euh, joxe benn information buy tax ñu mën a xam ne dossier mi ngi avancé moom Ousmane sow ko euh, fan yële ñu génn ca la daal di nag bind benn recours boo xam ne daf ko daal di jébbal cour suprême ngir ñu daal di nag wax juge bi nag euh, bañ gi mu bañ euh, ngir daal di informer ci mbirum dossier bi nag mu daal ciy génn loolee ci wàllum justice ñu koy daal di duppee nag refus d'informer du juge ñeel nag li nga xam ne moom mooy dossier 94 milliards yooyu le moo waral sax ba moom mi nga xamante ni moom mooy juge bi daanaka fu mu toll nii nag waxu si ba tey waaye waaye cour suprême ci boppam nag dañoo daal di jëlaat recours bi nga xam ne moom Ousmane moom la Ousmane Sonko daal di nag dugal daal di koy annulé ci nu mu gën a gaawee ndax nee ñu nag boobu les recours nag nekkul lu war a am ndax moom Ousmane Sonko ci boppam mbirum 94 milliards yooyu le laalu ko taqewu ci jegewu ci itam amu ci un franc du mbokkam du xaritam du lennam kon li war tax mu daal sonn ngir ñu daal di raxawal dossier 94 milliards milliards yooyu ne nag uh, soo maytu ci intérêt kese eh, lay daal di nag uh, doon moo tax nag cour suprême lu ñu mel ci la ñu sukkandiku ba daal di bind ñoom itam uh, seen benn nag communiqué boo xam ne dañ koo daal di nag génnee ngir wax ne nag lii nga xamante ni moo ñeel dossier 94 milliards liñ ci xamante ni moom lañ ci daal di nag sàkku dawate na njiital Pastef Ousmane Sonko lépp nag nee ñu mënuñu ci tontu benn tontu ndax loolu maanaam si kaw gàttal daal buñ sukkandikoo ci cour suprême dafa rejeté recours bi ba noppi daal ne ko Ousmane Sonko yow ci boppam lii sa yoon new ci génn ci boo ci bokkoon sañu àtte ko waaye comme sa bokkoo ci duñu ci dugg tey duñ ci dugg ëllëg ndax amoo ci benn qualité amoo ci leen loo xam ne wax nga ko ci mën a daal di wax. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.